asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne daanañ baaxoo at weer wu ne ñu ànd ak ñun fii ci jumaa ju mag yi di jumaa yi Seexul Xadim eh, ñoo ngi toogaat fii ci jumaa ji feggoo ak eh, sëriñ Abdou Diop imam mi yore kaddu commission bi ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul ma ci teewaayu sëriñ Abdou Lahad Bousso ak kuréel bi mu àndal bépp waaye ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ñooy kuréelu eh, séntu weer wi Euh, mu mel ne rek euh, waxtu wi ñu daan joxe déclaration jot na ci ni ñu ko daan defee damay bàyyi kaddu gi ak Serigne Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kaddu commission bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ni ko Serigne Fallou Galassi la waxee rek noo ngi nuyu bokk yëpp di leen xamal ne ni ko baaxoo def def nañ ko. muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëriñ bi dana yebal ci jumaa ji ñu yéene fi wax ne nañ séentu weer te loo ci waaye xam na nga ko yëgle si buñ ko séentoo ba noppi nag nun commission bi ak waa mu ma xaddamatul xidma danañ ànd toog ci soowu jumaa ji di taatan xibaar yi ak di séentu suñu bopp ban biñ ko defee nag ba waxtu wi jot nag ba ta jokkoon nañu mboolem gox yi ci Sénégal waaye ki fenn fu ñu waxee ne gis nañ fa weer wa amut nuy séentu nañ séentu waaye gisuñ ko bañ defee loolu yi lan daal di jokkoo si kër kër xalifa bu tedd bi Cheikh mun Mountakha ba kon mu joxe waxe ndigal ne ginnaaw jekk ngeen ba nëgë ni di ko séentu te gisu leen ko kon mën nañoo mën nañoo joxe ndigalul ne feeñut kon ñu xam ne weeru wi feeñut suba ñu xam ne mooy mottali weeru <coughs> weeru kor wi di fanweeram waaw kon ñu ñëpp nañ xam ne suba ci ajjuma ji mooy doon fan fanweeri fan ci weeru ko weeru kor wi gaawu kon mooy doon benn fanu ci weeru digg wi di diggu tabaski kon ñu xam loolu di ñaan nag sëñ bi mu yàgg fi lool ba li mu ci yoon wi lépp mu def ko tan ànd ak te ceeg moom yàlla may nu xéewal ak jàmm ak sutura ak teel a bëgguñ nangu ci dara yi Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu mbokk yi loolu mooy déclaration bi kon ñu xam ne weer wi feeñul euh, gaaw mooy nekk benn fan ci weeru diggu Tabaski euh, kon ñu ngi leen di sant di gërëm di yëgle rek ne kon xam naa bu fekkee ne gaaw mooy benn fan ci weeru la 30 juin mooy nekk màggalu Daaru Salaam allahu rabbi la 30 juin mooy nekk màggalu Daaru Salaam sant ñëpp di leen gërëm seen mbokk taalibe la Fallou Galass Syll fii ci jumaa ji tedd ji wasalaamaaleykum rahmatullahi wa barakaatu.